بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء والمرسلين مبكي تاي ني نيو خمنا تي بن بن بات بو خامتني ولا بن سكر بو خامي لوي ام سولو لا ديكو وارال نك ديمبو وقتان اك بن جيمو موماي نيتلي بن ген غور غو خامتني خمنا امنا 50 تان يو تك سوخنام داكو جوخون ليك غو خامتني خاينا دا ام لوم تي ديفون mooy seen xeeti ñaam joodo yooyu ba mujj mu jaaree ca ñàkk bakkanam jóge ca faatu yal na ko suñ borom subhanahu wa taala yërëm boo defee xam naa yéen gis baat bi may cercle mu nekk ci mu nekk ci suuratul fiil muy alam tara alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil képp koo xamante ne bëgg nga yàlla musal la ci lekk ñam wu bon wala même bu la ko nit joxoon ba nga lekk ko boo ko jëfandikoo yàlla mën na koo génnee baat bi mooy nekk ci alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil alam fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi xijaratin min sijil fa jaalahum ka asfin maakul baat bii ngay bindulu ka asfin maakulin gii ngay bind lim bii nga koy bindulu cent quatorze fois nga koy bindulu ka asfin maakulin ngay bind cent quatorze fois nga def ko ci butéel garde ko naan ko ba mu jeex man nga ko def ci bouteille ak génn di nan di ko naan ba mu jeex bu jeexee nga bayyi amul ay jour yoy nga nan ko ba mu jeex nga bayyi boko defé yalla man la sutural ba bepp ñam bu bon bu la nit joxati bu fekente ne yàlla dimbali na deug deug sax du aksi ci yow manam bu nit yoron aw ñam bu bon wax da la ko jox ngir lor la bu la jubé sax man na touru man na touru waye bu yalla dogalee nga jëfandikoo ko tamit suñu borom man la sutural ba lolé du la lor inshallah allah alamin ko xamé da nga lek aw ñam boko wé ñam wu nekk ci sa biir te tawrees wala muy ab liggéey wala xeetu noob yooyu yàlla dina ko dindi incha allah ci kàttanu alquran kon gis nga alquran li ci nëbb ci secret dafa bari lii boo xoolee secret bu yàgg yàgg yàgg la waaw mooy boo xoolee këyit bi sax dafa xaw a changé waaye baat bii rek ngay bindalu ka asfin makulin ka asfin makulin ka asfin makulin gis nga lim baa ngi nii leer na nañ ñi ma roté ci kayit bi ndax ñi nga xam ne léeg-léeg dañuy ñëwaat di la laajaa nag la nga waxoon feek la nga waxaat fii mi ngi ni leer na ñi la ko waxe kuma ma woo di ma ko laajaatit ci jaara dama na la delu nga xol video ba ka asfin makulin gi ngay bind lu fois def ko ci bouteel diko naan bam jeex boo ko defee yàlla la sutural bu nit yoree ñam wu bon jëme ko ci yow bala agsi ci yow mu depp bu la yalla natto ba nga jëfëndiko ko tamit inshallah allah du la lor bu de nga lek ñam wu bon suñu borom nañ ko génne ci kàttanam wa rahmatullah